maman ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay dellu ziar ne tuuti bu baax. a euh, tey nag ñu ñëw gis te fii si euh, King Fahd si événement Papis Niang bu mu organisé ngir rek wan ñu li nga xamante ne mooy historique gu Penda Mbaye tey jii nag lan moo waraloon déjà rek sa teewaay fii si King Fahd. sama teewaay li ko njëkk waral mooy Papis yaayam daf ma bëggoon ba may xale ba tey dafa ma yàgg bëgg daan jóge Sénégal di ñëw Gambie. bu mosaan ñëw di dal si man euh, loolu yàgg na waaye li tax sama teewaay tey euh, li ko waral mooy kóllëre li ko waral tamit mooy euh, papis dafa dekkal cosaan dafa jël démb indi tey ndax bis bu nekk dama koy wax boo demee Europe da ceebu jën Penda Mbaye àddina yëpp ko xam waaye papis ba ko àddina xamee dafa dem gëstu dem lu luññutu lan moo ko waral li ko waral tamit macha allah moo waral sunu ndaje bi mu ñëw nag euh, def ci film bu am solo boo xamante ne tey da ko bëgg a tasaare euh, seddale ko àddina bi ndax ñu xam lan moo waral ci bu jën penn mbay ñu gis ne euh, boo xoolee la nouvelle génération kenn fa xamatul sax fi nga fi nga cosaanoo ñi si bëri nag nee nañ yaay yi léegi si boppam ñoom ñoo rate seen éducation doom ñu si bëri tamit ne ndaw ñi ñoom ñoo bëggul jàng ndax topp li nga xamante ne moom mooy tubaab Ah, loolu la xam nga tamit euh, yéen euh, da ngeen a cuub seen drapo nang nee na tuuti te nit war ta cuub drapeau euh, léegi ba léegi bu ñu leen di jàngal togg sax da ngeen di yokk gaz ba muy fërërër yi te ceebu jën penn may boo ko bëggee togg da ngay teg xam nga li anglais naan teg easy ngay def bu dee gaz da nga koy wàññi muy tep tepp di bax ba def ay lënd jën ya doo ko ruusi doo ko saaf da koy roof diigal ko xam nga togg diigal bi mooy tëmbal tëmbal waaw ah, diigal ba tey xamoo ko damay leeral nit ñi rek. waaw dama di kaw kaw nag doom. ah dama di leeral rek xam nga diigal day xaw a xóot ci wolof. waaw xam nga nag dama di kaw kaw moo tax xam nga diigal la ñoo fi mu nekk nii li may wax seen nasaraan gaa ngi nii diigal xamatu leen ko. diigal mooy tëmbal. mooy tëmbal tey bu ma nee ëkk nga ne ma lan mooy ëkk lan mooy ëkk bu ma la ko waxee luy ëkk mooy ëkk. ëkk mooy garab goo xamante ne gor nañ ko. goruñu ko yëpp ba mu jeex mu des reen ba ak bant ba xam nga ngelaw bu ñëwee lu ngelaw foor foor fa la koy bàyyi loolu mooy ëkk il faut que ngeen jël démb indi tey ngeen xam cosaan benn mooy ceebu jën Penda Mbaye da ngeen ko war a gëstu ndax man bi ma gëstoo sëy xale yi lu koy tas léegi lu bëri luñ ma wax mooy xale yi mënatuñoo togg lal bu baax sax mënatu leen ko lu nekk agité la. livraison bi waaw waaw lu nekk nag. dina ak jamono nag nañ waxante dëgg nag. parce que yéen temps yi ngeen amoon ba si ba tey man man maa fiy toogal la nouvelle génération. xanaa xamoo ni bu dee benn nen sax nga di ko omelette di jaabante su borom kër di la gis dafa neex nen ne. xanaa xam ne nekk sa waañ sol lu oyof rek di nokkas kan nag ngoo ngay nokkas gën gi buri boobu mu koy bàyyi xel rek dafay kontaan sag la euh, jéeg bu dugg ci waañ sag la ci borom këram te yéen duggatu waañ. bëggatu leen waan lu nekk je à jeter rek ngeen. nag maman nag dañuy waxante dëgg danga may nangul ni jamono jii ñun temps yéen bi ngeen amoon jot bi ngeen amoon ñun amatuñ jot boobu peut-être une fois dans la semaine la ñuy mën a dugg amoo jot ba amoo sa jotu moo tax seen sëy yi di yëngu. dañuy liggéey. non seen sëy yi moo bëñ bu yàlla yem. Mm. liggéey ba fa la nekk ci liggéey ba la nekk wala ca kër ga. caabi àjjana bi fa nekk ca kër ga la nekk nekkul ci liggéeykaay ba ni ngeen farloo ci liggéey bi ba kenn du leen dàq seen patron yi jiital leen farlu leen ko ca kër ya mooy borom kër da koy sagal suturaal ko di togg di yàq lal ba neex wax ja neex ngay sukk di defari tànkam di ko defaral ba mu baax amatu leen jot bàyyi leen ko am jotu saytu amoo jot toppatoo pour la loolu bu ngeen toppatoo seen borom kër yi gis ñu ko toppatoo de te dañuy dem feet xale bu pare ñu dem dugg ca moom kon yéen yéen a wutal wujj seen bopp yéen a tax góor ñi di doxaan yéen xale yi toppatoo leen seen borom kër te sëy foofu laa yem ak yéen. li nga xamante ne mooy tenue yi tamit boo xoolee jigéen ñi léegi li ñuy xëcc sol jean t-shirt Lacoste takk seen i basket moo gën a bari li ñuy def ay taille basse ak marinière ak nokket ak grand boubou. xam nga tey bi nga ñëwee ci programme bi sa xol sedd na. tenue exigée traditionnelle. waaw xam nga tey yow mi ñëw nii sax sa xol sedd na yow tey boo yëgoon danga naan ma sol grand xam nga cosaan dekki na waa lii mooy aada ak cosaan gis nga nit sama doom du cuub drapeau te lii lépp li ñu ko yóbbee mooy cuub suñu drapeau waaye boo xoolee suñu réew mii mag ñu baax ñi jàmbaar yi nekk suñu réew mii doo jéggaani man ba Europe bu ma fa demee musóoru 5 mètres laay def jël sama kol teg ko fii di wan nasaraan yi man pure africaine la black and beauty sam du ma mës a ceeñ parce que sa drapeau boo ko cuubee rek foo dem dañ lay yëppal dañ lay xeeb lii nag mooy ci sotaan mooy sunu aada kon jaaraama papis li mu mën ren bu dewee déwénee yàlla na mën lu ko ëpp ci barke Cheikhul Khadim. kañ ngay jàngal xale yi tagal comme sama genre nga xam ne mënuñu tagal. waaw xam nga nag euh, tagal il faut ngeen dugg école ndax xam nga tagal dafa am musóor am jal am fiitu am fiitu moom boo meree sa borom kër dafa am musóor goo def sa borom kër bàyyi ree ji sa borom kër xam ne danga koo mere. nee <laughs> ngeen boo meree sa borom kër ngay fiitu ma. barke yàlla bee di man maa ngi dee. xam nga fii tuuti. da nga koy ñëw rek xëcc ko noonu rek mu dang waaye teewul da ngay da ngay sa kanam mu jongo ma waaye teewul da ngay fiitu tagal dafa am jal am chapeau am waaye ñun lii muy ñu def mooy suñu cosaan xoolal soxna mu lii mu def cosaan dekki na tey bëgg de waa xale il faut ñu ñëw. non 5 mètres musóor 6 mètres musóor maa am fitam dama di africaine te ma sama dara. dara du lang. wa ah? dara du lang dara du lang. man la soxna Awa Djili bu ITV seen xarit seen soppe maa def lalal basang 11h ba midi et demi di leen ko seetaan ak am solo fii réew mi tol maa ko téye. yaa ko téye à suivre. merci beaucoup.